kammil aqaa'idi wa kammil fiqihi ma tasawufi waraqi nubixi mbokki jullit yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu dellu siwaat ak yéen ci seen daare Saxum Touba ci njàngale mii nga xam ne mooy njàngum <coughs> fiq tàmbalee ci Laxdari yi waaye di ci ànd ak sarxab euh, jawharu nafis Cheikh Ahmadou Bamba keroog nag ñëwoon nañu ci ak yéen ci suñ septième numéro tey muy huitième numéro bi lu ñëwoon ba ci dëgg-dëgg lan mooy fo wax naa ni téere bi lu mel ni fo ak sabotaas xool jigéen ju ak bànneexu ci ay wax mag dóor li ngeen di wax dóor mooy tiriyaane nit ki ngir am alal ak yépp téere bi day tudd baat bi rek dem waaye chara bi moo ko leer incha allah fo nag moom eh, ci la tàmbalee wax mu ni aqiqatul abasi kullu laacibin xat manaat min u shariatu nabi nee na daal dëgg-dëgg yi po daal dëgg-dëgg daal lii fo ak po mu mën a doon nee na ci sharia nee dañ ko tere waaye nee na wa min u jaisul wa min u maanu zib ila karaxatin ba min u maanu dib neena na ci njàngaleem fuqaa yi am na po mu dagan waaye am na po moo xam ni dañ koo sib neena na nag jaa'isuhu almasu maa siddiqi bil xaqi laa xayrun ala taqiqi jaa'isuhu po mu dagan mi daal mooy almasu maa siddiq maanaam foo ak sa foo ak saxarit xarit ci ay wax kaf waaye nag waxul mel na po moo xam ne day sànq waxtu yooyu moom taxu koy wax nee na nag waaye bil àq ci dëgg po moo xam ne yéen a ngi fo waaye ba léegi mooy leen yàlla laa xayru nee na waxuñu ma nen po mu dul dëgg ala taqiq ci dëgg kon am na bu ñu sib makruhu nee na po bi ñu sib nag iktharuhu nee na po yooyu ngeen di po nee na baril gi dañ koo sib iksaaran li annahu yu dayiul amar ndax nee na xam nga bu ngeen di fo yéen a ngi def loo xam ni amul tuyaaba nee na loolu day sànq ak dund sànk ak dund mooy xam nga sufiyanke dañuy wax ni kun ibnul waxtu yow na nga doon koo xam ne waxtu wu nga am ca tuyaaba kon ndeke nit ki bu defee loo xam ni moyul yàlla waaye amalu ko njariñ bi ngi sànk waxtoon parce que am na noo gu génn te jaamuwut yàlla subhanahu wa taala loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ba tax na anglophone yi dañuy wax ni ñoom time is money temps daal ñu ne daal xaalis nga ci war a wut kon temps yépp xaalis la sufiyanke yi dañu ne ñoom time is tuyaaba ñoom la ñu wax time is tuyaaba mooy time heure yépp mën nga ci am tuyaaba te ki waxtaan is tuyaaba hélas kooku day am ñaari bénéfice yow bi nga jógee sa kër jël sa taxi ñëw ci studio bi delluwaat jëlaat taxi dépense boobu ndax lan yaa ngi tasaare njàngalem lislaam euh, ci misaal weer dee ñu fay la tant yaa ngi liggéey di dunde ngir bañ a sàcc ngir bañ a triande ngir bañ a def yi mu wax yépp xaalis boobu yàlla da lay fay ci dépense bi nga ko joxe sa kër te pourtant temps yi yaa ngi doon wut xaalis waaye lépp da bëgg am lu lew lu dund oto bi na kër gi na soxna si na lew dund bi na lew yi na yére yi kasa kasa kasa kon l'islam dégginam dafa gën a yaatu time is money ndax lépp lu muy wut rek da cay jiital loola ak jaamu yàlla la jaamu yàlla du kon ay ràkka yu bari kese koor yu bari kese waaye jaamu yàlla mooy effort acte bu nit kiy def te muy lu dagan te loola di tax mu mën a résister ngir li yàlla tax li yàlla sàkk nit ngir bind ko ci suuf mu def ko nga matal loola benn bis alayhi salaam di leen wax ni leen ndaxam day ku ànd ak sa soxna ci kaw lal da ngay am tuyaaba saaba yi ni ko ah ànd ak sa soxna am ca bànneex am ci tuyaaba ni leen waaw boo ànd nag ak kulul soxna nag muy njaalo ñun ko da ngay am bàkkaar mu ne moo tax nag bu dee soxna nga am tuyaaba kon jullit léppam euh, time is tuyaabal ala kulli kon nee na wi ca dagat mooy woowu waaye wu ñu siw ba nag nee na mooy baril ga nga xam ne day sànq ak dund am na bu ñu sopp nag mu ni man doo buxoo fen wi ñu sopp nag wala boog po po ma ñu sopp al abasu mooy ngay fo bil xaliili ak sa soxna wal waladi wala ak sa doom as saxiir doom ju ndaw da waaye nag waxuñu na nga bàyyi la caay-caay maanaam bépp po moo xam ni day dugg ci wàllu mooy yàlla taxul ñuy wax booba duwuñu ñu sopp bi ñu sopp xam nga sa soxna nga toog di wax ak moom wax joo xam ne dangay ngay kaf wala sa doom ngay foog moom xale la ngay def yëfu xale yooyu xam nga nee na kooku dañ ko sopp ala kulli alim nee na kon wa jawazu dagal nañu daal alabasa fo bisa mi ci fet kasa bil kalbi wala ak sab xaj wal farasi ak saw fas fadri xamal liñ bëgg a wax xamal al maqafa jàppuwaay bi li mënta jàpp mooy jël sa sa sa fitt ngir lan di jàngal sa doom ngir mu mën a jam ndax bu lislaam soxlaa euh, mu mën a jël fitt ga ngir mën a xare jël saw fas di ko jàngal ngir mu mën a daw pour buñ ko soxlaa ci lislaam sab xaj nga di ko jàngal rëbb di ko jàngal garde ak yu mel noonu mu ni yooyu dagan euh, téere bi waxoon na xool jàmbur bu jigéen nee na bokk na ci yi araam wa nasru lil yi ak xool jàmbur bu jigéen kasa araam na talas su muy bànneexu bi xawlihaa ci ay waxam da na nga bàyyi saa xool jàmbur bu jigéen wa za ak lii di bànneexu ci ay waxam may fàttaliku am na benn bis ci daara ji benn soxna jombul mi ngi ñuy seetaan ñëw fi boobu xale bu jigéen la bu toll ci ay dix-huit ans mu ma daal suñ bi sunu daayira bi daal su ma ñëwee comme ñun dañuy kuréel ñun jigéen ñi euh, man daal bu ma ñëwee daal su fekkee man maa jiite daal xale yu góor yi daal moom li ñu mel ci man daal Euh, bu ma noppee daal buy joxee sax ku ne sa sa addiya daam ñoo xam ne li ma war a joxe ñoo ma koy joxeel ñenn ñi di ma wax ni ma daal yow boo ñëwul kuréel bi du neex yow sa baat bi ni mu nuy def man ko yow boo demee bàyyil ah man ko bàyyil boo demee benn yaa ngi def lu xaraam ñi ngi bànneexu ci sa kàddu gi sa kàddu gi neex na ci ñoom nee na bu ñu xamee ni day ñëw sax ci la mboole mi gën a bari saan loolu xaw na yàgg war naa am quinze ans ak léegi te seytaane mooy def yu mel noonu mooy def yu mel noonu ndax am na ñoo xam ni kàddu ndaw si ak taaram moom la ñuy bàyyi xel seytaane di ca jaar ba virus yi muy dugal ci seen xol yi di ko placer ndànk di ko placer ndànk ba mën nañoo jóg sàkku ji ndaw ji ndaw si jéem koo fexe ba takk ko soxna walla ñu jàdd ak moom ci yoon moom ci ñal wi laa bëgg a wax kon nee na araam na ngay xool jàmbur bu jigéen ak bànneexu ci waxam ah pourtant elas nag nga dajee ndaw si ci mbedd mi xool ko day daal di nga xool ko ci écran bi ci sa téléphone ak ci télé bi benn benn dagalu ci benn kon yàlla yàlla ndax fi nii kat ah kuy xool ci tele yi te loo gis awraw jigéen moom ba boo nga fay tele yi wallahi alazim xanaa la ca tane xooloo ko de di bànneexu ci awra wa waaye journal bi muy def moo tax wala lu am solo li muy joxe ak yu mel noonu waaye yow taxul nga di ko xool kàddoom tamit attéréwu la ba nga bànneexu alaa mais nit ñi yemuñu ñi yemuñu alaa kulli ndax mos naa fee dégg benn couple bu xeex ci seetaan théâtre rek jabar ja ni ko yow meloo ni diw mi ci théâtre bi jëkkër ji ni ko yow meloo ni diw mi ci théâtre bi ba ñu jàppante ja ba loolu siiw te loolu ay ay théâtre kese la sëñ bi indi beneen point mu ni wa akulu maali naas yi wala ngay lekk yi nit ñi indal ulama ci njàngaleem boroom xam-xam yi daal bi xayri ti bi si ci lu dul seen tey gi bakkan ay dan xurima nee na loolu dañ ko araamal pexe boo mën a def moo xam ci côté diine wala ci beneen côté la ba li li ngay jëlee ci nit ñi sañu ñu koo bañ de waaye wax dëgg yàlla soo ko defuloon yow duñu la jox lii yaa def acte buy tax ñu jox la ko waaye boo leen bàyyi ak seen sago duñu la ko jox loolu dafa xaram gis nga ko wamin uma saadafahu wa duiya bokk na ca loo xëy daa fiiroog moom ñu woo ko rek li ak lii ngir mu lekk ca min aj li kasratil xayaa ngir bari kerte wa mën a oo tere nañu ay dan ba tey añul xakimi fa akim ba lan alhamsa wa lamsa ala taadimi am soog lamsu dañuy ñaar yoo xam ne benn ci baaxul yépp a xaram muy lan walxamsu nee na aybun nee na sikk la soo xam ne bi ishaaratil uyoon bët moo koy def mooy piis nit ki ngir am na loo jublu ci piis bi ngay piis ngir wane defam nit ki xam nga nit ki bu ñëwee nekk benn bët di nuyoo yow nga daal di mel ni ko ree daal di gëmm sa benn bët léegi di ko sëbe te gis nga nañuy moytu nit ñëw rek ñi la dama doon laajte diw nee na ci koñ bi la dëgg nga ni ko ah ndax mooy borom benn bët bi ndax mooy kii soox Cheikh Ahmadou Bamba wax nañu ni ay nit mus na toog am kuy laajte ndax xam nga diw wala moom moo doon laajte munu ko ndax mooy ku gàtt ku ñuul ki munu ko demal ba gis ko nga jéggalu ko àq yéen kon ndeke noonu ngeen di wane seen moroomub jullit demal ba gis ko ci li ko wax nii waaw parce que jëw waxal nañ ko ci bi ñu weesu mooy loo wax nit ki te bu ko déggoon mu naqari ko rek jëw la bu fi nekkul loolu rek moom mooy jëw loo ko sosal nag loolu moom da nga koo duural nag da koo duural nag loolu nag moo gën a garaaw di sax foofu waaw nee na kon ñaar yooyu benn daganu ci mooy bi bët di def ak bi gémmiñ di def wa lamsu nee na lii di lamsu bi lisaani làmmiñ moo koy def moom mooy ngelaju may yis jaafa tiin na nga ràññetle baat yi ngir nga xam ko wala aklu bi diin nee na lekk ci tur diine dafa xaram Ah? waaw wa bi shafaati ak ci intervention muy rammu wa hakata ni ki noonu taxiiru lu taa waxtu jaamu yàlla jot na julli jot na nga bàyyi ko ne dafa xaram ci mukallaf naa lekk ci turu diine nag moom <coughs> war nañ cee def ay waxtaan yu yaatu waaye léegi est-ce que waxtaan sax dana jariñati waaye nga yee ci ki tomb ci ki toll ci war déglu ak jëfe sama anoo am na xale yu ci toll wala ay mag yoo xam ne ñu ngi fas yéenee jëf waaye dañoo bëgg li ñuy jëf lépp dëppoo ak li ñu war a def ñu ngi leen di jëlal loo xam ni ci ay waxtu ak ci alal loo xam ni jaaduwul kon ki nga xam ni turu diinee ko fal muy am loo xam ni turu diinee ko ko jox ndax bis bu bàyyi woon lislaam ni doonatul lim doon kenn duutu ko siyaar kenn duutu ko jox dara kenn duutu ko fay bu ñu ko def fay <coughs> ngeen baal ñu sañ mi mais kooku na xool ak lu bi diin na xool lekk ci tuuru diine ndax nee na sarul wara ki gën a yées ci mbindeef ñi alladiina mooy ñi nga xam ne yaxuduuna dañuy jël am waala alal ya bi diin ci tur diina waaye ak loolu ñu koy lekk allahu akbar xam naa nag ñëw fexe ba gaa yi moom fu mbooloo daje rek boo ñëwee di nga wax luy tax ñu jox la seen xaalis moom it nañu mooy du loolu dugg ci tur diine <coughs> nga fexe ba au lieu nga ñëw mel ni kuy jàngale waaye di nga laal santiment yi nit ñi te ñi ëpp ci nit ñi xañ na seen tolluwaay dafa xaw a suufe nga ñëw wax leen lu leen di bég loo yombal leen na trop loolu la mbokk yi suñ sëriñ yi daaw ñu ko def boroom téede bii ma tiim day jële nañ ci ñu laa fekk ay waxtaanam ñu ni ñoom sëñ tubaa ma ñu xamal bokkul ak seen sëñ tubaa mii ma ne ko ah mu ni waaw te la sëñ Cheikh gay Gueye waxoon rek ñu ngi koy ziar ñi góor ga noon na ko yow yoonu murit lépp loo xam ne yow mi yaa ko mag loolu bokk ci nee na ñoom seenum sëriñ Tuubaa ma ñu xaman ca njaareem xam ko béréb sàngam nee na bokkul ak seen mas mii man ko ma ngeen xamoon nag moom mooy sëñ Tuubaa nee na mus sa wax kenn sëqat ndax euh, non seulement da ngay jàq tiit te bëggoo dara raw la ci day def tachaddud ci lu tuuti loo xam ni nit ñi dañ koo wayefal lool ci benn baat boo wax walla benn yëg-yëg boo am wala benn xalaat boo am mu tontu la ci xalaat boobu loolu nag ah lu mat a dellu ci waat la ndax léegi nit ñi ñi ngi màmm te fa ñu jëm kat foofa ndox ne ko fa ni ko olof di waxee nee na kon ñi yées ci nit ñi mooy ñiy jël alal ci tuuri diine di ko lekk nee na ñooñu bu yomal xiyaamee butuunuhum seen biir yi daal takkuunu kal xusuur day mel ni ay gratte ay étages ay njënd ndaw rëy xaddan bu buyuuti doona zuur néeg yu rëy rëy te wax jii nee na duñ neen tas a aqaaribu nee na nag nga seen ay jànkalaar ay jiit nekk ci biir yooyu maal xayaat ànd ak i jaan fiiha bi taazibin bila mamaati ñu koy mbugal di ko mbugal te du dee nag xam nga dee moom benn yoon lay doon dee moom du doon ñaari yoon ala kulli xaal mooy ñiy jël alal joo xam ne ñu ngi ko jël ci nit ñi te wax dëgg yàlla du seen sago du seen tey gi bakkan loolu sax kii jibar nit ba am ci moom alal kooku moom beneen affaire la beneen étape la aussi moom it waaw kii moom jibarul deful dara waaye ci ay wax ay pexe ci la def ba am ci nit ñi alal bokkul ak ki nga xëy dafa liggéey nit ki xam nga dangay gis ci ñi nga xam ni ñu ngi gëstu xam-xam yooyu léeg-léeg ku la ni am naa xam-xam boo xam ni boo doon lebi tey jii un million deux million trois million boo indee tur ki nga koy bëgg a leb su ma la defalee lii rek boo demee de la lebal su ko defee moom danga koy fay xoolal lii mbokk yi njibar bokk na ci li gën a yàq suñu société bi bokk na ci li tax Afrique du gaaw a avancé mukk mukk mukk muy wàllu ak njibar wallahi wallahi wallahi te borom bi wax ni ab jibar moom du mus a texe yow mi koy fréquenté gëm lim lay waxit yow génn nga ci diina te mi ngi fi léegi sax dañ koy affiché ci télé yi fay seen émission ñëw wane seeni bagage ni nga gise maktab bi hélas génn ko muy ay téere noonu lañuy ñuy ñoom it seeni jumtuwaay yi nga xam ne yii ci wàllu njibar lay dox jële naa ci kenn ci ñoom mu ne ma réew sàngam ba ma fa demee su minuy jotee am na marché boo xam ne boo demee cëri nit la ñuy jaay te boo ko jëndee loo ci ñaan mu am allahu akbar an ah, noonu ko loolu koy du kiimaan su fekkee ne ñun jàppante an ko loolu du kiimaan mën na lu raw parce que li bëgg loolu ko ko defal rek la bëgg ah, nga jël ko ndax lan da lay mais li nga bëgg ci àdduna mu defal la ko loolu di kiimaan nee na nag ñooñu seen biir yi day toll ni ay néeg jiita jaan nekk cay fit di ko mbugal ci lu dul muy faatuwaat waaye te azza kulla man fi naar nee na bu bobaa nag ku nekk sawara yaa ngi loru ci xet gi génne ci biiru waaj yi natri bu toonihim isaarihu tuin ku ngelaw la dugg ci waa sawara xam nga sawara ni mu tànge alayhi salaam nee ndaxam sawara yii ngeen jot ci àdduna day dañoo xaaj sawara wane àllaaxira juróom ñaar fukki degré ba ci gën a woyof moo ñëw ci àdduna nee na benn charra bu ñu ko jëloon walla mbubb ñu ne sawara seen mbubb teg ko ca charku ca penku nee na waxuma la sax li na ci digg àdduna waaye la na ca xar bu lu tooyan day wow du géej du garab du bàyyi ma du nit subhaanahu wa te sun borom nee na nit ak i doj ak jinne ñooy fees sawara te nee na bokk na ci mukallaf wala la xoo subata fasixin nee na bu bul ànd ak saay-saay amoo dura ànd saay xultatuhu li xayri durrin musjala wala xultatuhu nee bul jaxasoo moom bul xaritoo moom li xayri mus jalaa xanaa lor lor mooy loo xam ni daroor a munta ñàkk yaa ngi jóge fii bëgg a dem euh, Touba bëgg a dem Ziguinchor saay-saay bi moom it ngeen bokk oto mais foog ngeen ànd ak yu mel noonu ak yu mel noonu yéen a bokk dem hôpital toog di rang ak yu mel noonu waaye bu yooyu bul jaxasoo ak ñoom nee na wa man yusaarikuhum nee na saay-saay yi ku bokk ak ñoom xunaa fii ci àdduna fii izzihim ci seen tedd nga nee na yàkkun sharika um bu yowmal xiyaamee yéenay bokk xaddan fi zullihim seen toroxtaange ah mbokk yi kii falu na am na pouvoir walla jaay na lu xaraam ba bari na xaalis walla nekk na ci koñ bi xam ngeen kii moom mooy kan waaye bari na alal rek fi mu ko jëlee xaram na baaxul kooku kay bul àndak moom nee na boo ànd moom yowmal xiyaam ni nga bokkeek moom alalam jii mu la ciy defal nee na ëllëg fa mu dëkk fa ngay dëkk yéene bokk toroxtaange ja ak ku mën a doon alaa kulli xaalin waju tànni boo na ngeen moytu xultataxaullahi nee na jaxasoog gaa yooyu li annaha ndax jaxasoog ñoom min aqbahil ashyaa nee na bokk na ci li gën a bon ci mbir yi ànd ak gaa yooyu laakin mu daaraatuhum wante nag ngay maslaa ak ñoom moom xat nu ba sopp nañ ko kama kama bi nas fi xadis si xat sabat comme ni mu ci benn hadis muy wax ci di def mudaara di maslaa ak ñoom wa adduha irdaauhum bi xayri ma waaye fa nga war a yam nag ni ñu ko limité mooy nanga fexe ba euh, naha makru an xul aw muharrama irdaahum di leen gërëmloo bi xëyri ma loo xam ni naha tere nañu ko makru an loolu sib nañu ko xul rawati na sax neel aw muharrama wala luñ ñu xaraamal maanaam nag masalaa geeg ñoom bum tax ngay masalaa ci lu xaraam ak ci lu ñu sib déedéet maslaa la ñoom kay ci loo xam ne lii sibuñu ko araamul mu mel ni kon hélas day mel ni waxtu yi <coughs> mi ngi bëgg a euh, jeex te jotunoo sax ak siwaat ci bindu Laxdari bi nga xam ni moo ci war na topp waaye dañuy yem fii te di ñaan borom bi may nu fekkwaat bi ci topp incha allahu nu bañ ko yàkkamti di indi chara bi ndax jikko yépp presque moom la laal te téere bi pourtant dafa ñëw ngir jàngale fiq ba léegi dugguñ ci fiq bi te dina ñëw ci fiq incha allahu ci wàllu laab dugg ci julli ak la ko yàq ci diggante euh, rukkooya ak yëpp ko daal noo yem fii rek di leen balu ak di leen baal ak lu ci jubul rek ci noonu la waaye lanu yéenoon mooy mu jub wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu seen mbokk Mouhamadul Habib jërë ngeen jëf الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني